الحمد لله البديع الأكرم وصلاته أبدا أهلا الماء الكريم للمصطفى بحر الندى ليس الإداء أفدي سلام ختم سلام محكم هذا النبي يلمنتقى ما لم يكن لمفادل إن الحكيم الأحكم مدى البديع وجماله لمحمد مد البديع جماله لمحمد ونواله سبحان رب المحكم مد البديع جماله لمحمد ونواله سبحان رب المحكم دين النبي المنتخى دين ما رام خاسدها تأذى الكريم دين المصطفى دين العوام دين الأبي المنتخب دين العوام دين العوام ما رمها سدهات هذا الكمين للمصطفى ما لم يكن لمخادم عند الوفيد بظاهر وبمبهم شفع وهو الذي تفديله لم يبهم هو سيد هو شافع ومشفع وهو الذي تفديله وجه النبي المنتقى خير الورى وجه اليوزى ذو ظلمات المتويم وجه النبي المنتقى خير الورى وجه النبي يلمنتخى خير الورى وجه يزاسه ظلمة المتويم murid yi sëriñ baa ngi nuyoo Cheikh moom sëriñ Abdou Khadir mooy wax murid asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nee na mi ngi nuyu bokki taalibe yépp ci ndigalul cheikh mouhamadul muntaxa mi fi tooge jataayub sëriñ tubaa bi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba mottali mboolem yéene yi nga xam ni ne am na ko ci liggéeyub sëriñ tubaa cant waaye nag mu yëkkati kàddu yu cant ak kàddu yu ngërëm nee jëme ko ci jëwriñam ji di sëriñ Amdi moom sëriñ Modou Fall Mbenda mi nga xam ni moo fi jëmmi Cheikh Ibra Fall ci kaw suuf mu di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi lool te ànd ku wér ba mottali mboolem yéene yi nga xam ni am na ko ci liggéeyu Cheikh Ibra Fall bi nee kon mi ngi nuyu bokki taalibe yëpp nee xam naa kàddu yi day Cheikh Falilou cant rek lay doon ak ngërëm kon nee Serigne Falilou nee sëriñ bi nee na nga jottaleel ko am nuyoo ak cant ak i ngërëm yaag sa bokk yu tedd yi fi teew yëpp. ñii di si ay waajur. ñii di say ñii doon say rakk. ñii doon say doom. ci taxawaay bu mat sëkk bi nga xam ne. ci taxawaay bu mat sëkk nga xam ni. sëriñ bi def na ko ci liggéey bi. sëriñ bi def na ko ci liggéey bi. ndax yàlla def na. ndax yàlla def na. Cheikh Mouhamadul Mountakha. Cheikh Mouhamadul Mountakha. biñ ko joxe pàkk bi. biñ ko joxee pàkk bi. ci weeru tam xarit. ci weeru tam moo fi ñëwaloon boppam. moo fi ñëwaloon boppam. nga yëkkati fi kàddu yi nga fi yëkkati woon keroog. ca nga yëkkati woon fi sëñ Falilou kàddu yi fi yëkkati woon keroog. kàddu kàddu histoire la. yooya kàddu histoire la. ndax dafa tombé lu yéeme. ndax dafa tombé lu yéeme. booba màggal gi mi ngi tolloo corona bi. booba màggal gi dey mu ngi jub waaye ñu ci biir corona bi. ñëpp ne màggal ba ñëpp yaakaaroon ni màggalu Tuubaa gii du am. te fekk na sëriñ bi dogu na ci. te fekk na sëriñ bi dogu na ci màggal gi. ci mu ci ne faw mu am. def ci àjjuma ci démb sa. yàlla def ci àjjuma ca démb sa. la ko sëriñ bi yónni woon moom Cheikh Basirou. de xamal ki jiite réew mi ne ko. de xamal ki jiite réew mi ne ko. màggal gi kenn mënut tee mu màggalu sëriñ Tuubaa gii kenn mënut tee mu am. ba baat bu diis. nee ba jëfandikoo ko ci baat bu diis. bu ñu doon rend bañ jeex. ni ko Cheikh Basirou. neel président bu ñu doon reen di ñun ban jeex du tee ñun murit yi ñu def màggalu Sëriñ Tuubaa gi loolu nee na bisub ajjuma la ca tàkkusaan ci waxtu wii rek nee gaaw ba ci suba mu ànd ak sëriñ bi nag moom sëñ Basiru jóge njaareem ak sëriñ Moussa Nawel ba mu see fii ci daaray Seexul Xaddim bi Seex Falilu Faal mi yëkkati na fa keroog kàddu yoo xam ni nee dafa mel ni dafa tontu lu sëriñ bi waxoon nee kon loolu barab bi Cheikh Mouhamadou Mountakha daa wax ni. yéene jim ci am. yéene jim ci am. moom mu nekk daari Serigne Touba. mu fas yéene mu doon daari Serigne Touba. ñu fi jàngale alxuraan. ñu fi jàngale alxuraan. ak majalis. ak majalis. waaye du doon njàngum école. waaye du doon njàngum école nee na. loola nag. nee loola nag. dafa am junj bu rëy bu mu ci jublu woon. dafa am junj bu rëy bu mu ci jublu woon. boo xam ne junjoon na ko fi. boo xam ne junjoon na ko fi. kon nag mi ngi sant Serigne Amdi. kon nee Serigne Mountakha nee na mi ngi sant Cheikh Amdi Fall. ci taxawaay bi ci taxawaay bu réy bii mu taxaw liggéey bi mi ngi ko tàmbalee woon ci sëriñ Cheikh Jëmb Fall yàlla na suñu borom dolli ay leeram ca fay ko moom sëñ Cheikh Jëmb ci lam liggéeyal maamam lépp ba sëriñ am di Fall ñëw yokkaat taxawaay bi yokkaat pësteef bi nanguut a wàcc nanguut a noppalu ndax xam ngeen ne kat la sëriñ Abdoul Ahad Mbacké waxoon ni ñaari kër yi fu ci ne daa am ñaari kër yii kër gu ci nekk daa am bañ. kër Serigne Touba. kër Serigne Touba gii. ak kër Cheikh Ibra. ak kër Cheikh Ibra Fall. mbañam. nee kër Serigne Touba mbañam. mooy ñàkk joxe ndigal. mooy ñàkk joxe baatum ndigal. kër Cheikh Ibra mbañam. kër Cheikh Ibra Fall seen maam ji. mbañam mbañam. mooy mooy ñàkk a jëfandikoo. mooy ñàkk jëfandikoo baatum ndigal bi. ne yaakaar naa sëñ Modou Aminta Fall la ko waxoon. kon nag yéen. wàcc ngeen. waxtu wu ne mu di ko seere. waxtu wu ne mu di ko seere moom seex Bassirou. ndax ku gis li ngeen di dund. ndax ku gis li ñuy dund. dinañu xam ne loolu pàgguteef la. dinañu xam ne loolu pàgguteef la. waaye doomu aadama attanu ko. waaye doomu aadama attanu ko. seen maam ji nag mën na ko fàggul. seen maam ji nag mën na ko fàggul. ci Serigne Touba. ci Serigne Touba. ba loola. ba loolee. dara mënu koo dindi. dara mënu koo dindi. ndax waxtu wu nekk. ndax waxtu wu nekk. ci yoon wi rek laa koy wax. ci yoon wi rek la koy wax. Serigne Souhaïbou Cissé mii moom sëñ Mor Mbaye Cissé. Baye Fall boo jaxasoo ñoom. mu ne ko Baye Fall sëñ sëñ sëñ sooy boo jaxasoo ñoom. ci sëñ Touba rek lañ dof. ci sëñ Touba rek lañ doof waaye ñu ëpp ñëpp am xel. waaye ñu ëpp ñëpp am xel. loolu nag loolu yi nag. pàggu téef la. mooy nanguwunoo gis dara ci sëñ bi. mooy nanguwunoo gis dara ci sëriñ bi. ci lu bokk ci sëriñ ci lu ci lu bokk ci sëñ bi. ndax sëriñ bi moom. ndax sëriñ bi moom. kenn mëntu gis ci moom dara. kenn mëntu gis ci moom dara. ndax dafa amul sikk. ndax dafa amul sikk. waaye njabootu sëriñ bi itam lu ñàkk ñàkk solo. nee lu yàlla dogal ñu ñàkk ñàkk ñàkk solo. bàyyi faali ñu ci ñoom dara. lu dul seexlu xadim seen maam ji. loolu yi nag. nee ñi ngi ñaan ñoom mbàkke mbàkke yi bu baax a baax. di ñaan ci seen barke maam ji seexul xadim. liggéey bii sëriñ bi di liggéey sëriñ Touba. liggéey bii sëriñ bi di liggéey sëriñ Touba. moom sëriñ Amdi Fall. te noppaluwul. ndax moom kat. ñëpp yéeme ñëpp yéeme nan nag waaye pëstéefam sëñ am di Cheikh Bassirou nee jaaxal na ko yéem na ko it eh, kawe na ba ëpp ndax kawe na ba ëpp fi mu toll ci at nee fi mu toll ci ay at waroon naa noppalu waroon naa noppalu mu wàcc wala mu wàcc wala mu ne dara waratu ko wala mu ne dara waratu ko waaye tey la gën a jaaju waaye tey jii la gën a jaaju tey la gën a ëpp dogu tey jii la gën a ëpp ak dogu tey jii la gën a ëpp séef sëriñ bi nga koy sant bu baax kon sëriñ baa ngi koy sant bu baax. di ko xamal lépp. di ko xamal ni ko lim koy liggéeyloo lépp. lu ci nekk. maa ngi koy defee nu kawe njortam. maa koy defee nu kawe njortam. kon nag na ko wóor kon nag na ko wóor ni. sëriñ Tuubaa mi muy jëfal. sëriñ Tuubaa mi muy jëfal. teg na ci bëtam ci jëf ci yàlla na ko yàgg jëf moom sëriñ Amdi Fall ñun tam ñoom Baye Fall yëpp ñu yàgg topp ci ginnaawam loolu sëriñ daam boo demee na nga ko ko jottali na nga ko ko jottali bu baax nee ko sëriñam nee na sant na ko baax a baax waaye mi ngi sant Baay Faal ci ginnaawam gépp ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha ak bëggam ci Serigne Touba. ak bëggam ci Serigne Touba. ak pëstéefam ci Cheikh Ibra Fall. ci maam Cheikh Ibra. la cay firnde wax naa ko barki dem la cay firnde moom sëñ Bassirou wax na ko barki démb. soo duggee ci néegu biiram. soo duggee ca néegu biiram ba. fa fekk foto Cheikh Ibra. da nga fa fekk foto Cheikh Ibra Fall. tuddee na ko doom. tuddee na Cheikh Ibra Fall doom. kon moom Cheikh Ibra képp moo ko ñor. kon moom Cheikh Ibra Fall képp moo ko ñor. bisu sikkar yi muy woote itam. bisu sikkar yi muy woote it. lim ci lamb dafa rëy. lim ci lamb dafa rëy. te xam ngeen ne ba mu ko njëkkee def. te xam ngeen ne ba mu ko njëkkee def. daanaka wér gi ci la tàggoo. daanaka wér gi ci la tàggoo dem yoonam. dafa wax ne. ca sëñ Muntaxa daa wax ni. wala zikrullahi akbaru. wala zikrullahi akbaru. ndegam mooy li gën a màgg ci jaamu yàlla yi. ndegam li gën a màgg ci jaamu yàlla yi. te ku ko tudd tudd maam Cheikh tudd moom Sikar. tudd Cheikh Ibrahima Fall. moo tax mu jagleel leen. moo tax mu jagleel ko waa kër Cheikh Ibrahima naa ne nag. nee gëm na ni nag. moo bisub xaside yi. moo bisub xaside yi. bi réew mi amee jàmm ba nëgëri moo tax. bi réew amee jàmm ba nëgëri ñaari bis yoo yoo tax. kon nag mi ngi leen sant bu baax. kon neen mi ngi leen sant yéen njabootu Cheikh Fall bu baax a baax kon Cheikh Falilou nga jottali bokki taalibe bi yëpp ñu xam ne ñu xam ni ñi ci kilifa ñëpp ñi ci ay kilifa yëpp yéen a ngi jub jublu koor gi ñi ngi dëgmal koor gi nag moo tax sëriñ bi jox na leen ndigal moo tax sëriñ bi jox na leen baatum ndigal ñi ci kilifa ñi ci doon ay kilifa nan dem waajali koor gi bàyyi fi nag liggéeykat yu ndaw yëpp ñu àggale ko. ndax liggéey bi moom yéen moom. ndax liggéey bi moom yéen moom. du ngeen wàcc. ngeen wàcc. ndax ngeen di jóge ci lii. ndax dañuy jóge ci lii. dem ci liggéey bi dem ci liggéey bi. lépp di leen lépp di leen nag. ndax koor gi. ndax liggéeyu koor gi. dafa rëy rëy goo xam ne. dafa rëy rëy goo xam ne. ndigalul Serigne Touba la. ndigalul Serigne Touba la. te li ci sallallahu alayhi wa ca li ci sallallahu alayhi wa sallam wax. man fatara fii saiman man fatara fii saiman ku ci dogal nit. ku ci dogal nit. lu ni ab tàndarma. suñ borom jéggal ko ay bàkkaaram suñ borom ko ay bàkkaaram. goreel ko ci sawara goreel ko ci sawara. kon yéen ay junniy junniy nit ngeen yéen kon ay junniy junniy nit ngeen di ngeen di dogal ci koor gi. kon da ngeen di jóge ci ndigal lii. kon da ngeen di jóge ci ndigal lii. dem ci baatu ndigal bee ca janatul maxwaa. kon ñu leen di sant bu baax di ñaan ci barkeb Serigne Touba nee ba koor gi jeex ak jàmm ci li ci suñu borom daali lépp ñu jot ci barkeb Serigne Touba te may ñu nag kattan nag gën leen a may kattan ak wér gën leen a may kattan ak wér ban gën a mën a liggéeyal Cheikh Ibra Fall ndax suñ dund gépp liggéey sëriñ bi la ndax. amu leen soxla ci oto. amuñu soxla ci ay oto. amu leen soxla ci kër. amuñu soxla ci ay kër. seen dund liggéey sëñ. suñ dund gépp liggéey sëñ Tuubaa kon ku ñëw ci yéen. kon ku ñëw ci ñun. dana jaajuwaat dana jaajuwaat. pasteefam gën a yokk. pasteefam gën a yokk. ba mu war a gën xam fi muy teg tànkam. ba mu a gën a xam fi muy teg tànkam. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu. Cheikh Ahmadou Bachir mi nga xam ne moo fi nekk toog si jotaay bi ngir mu seeral Cheikh Modou Mountakha jëwriñ ja ne sëriñ bi dafa wax ni ñii nga xam ne ñoom la àndal liggéey Cheikh bii mu ngi seereel sëriñ bi ne sant na leen gërëm na leen wax na ni sant gi am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem nee na cant gi mi ngi koy tàmbalee si mbooleem ñii mu bokkal Cheikh Rafal ñuy ay nawleem te defuñu ko nawle ab sëriñ lañ ko def muy buntu kër yëpp dale kër maam Saliou Fall ba si kër sëriñ Gunda Fall nee na dañ koo jàpp-jàpp goo xamante ni kii liggéey bii fépp fu mu àgg ba sëriñ bi di ko sant ñoom ñoo taxaw si gannaawam ànd ak moom lépp lu mu yëkkati ñu ànd saak moom ba ni ko sëriñ bi bëggee mu amee ko ni waxoon na ni cant gi mi ngi si mi ngi siy dolli ñi nga xam ne Cheikh Rafal dafa gërëmoon seen maam mbaa njabootug Cheikh Rafal gi gërëm seeni i maam wala seen i wajur muy cheikh yi nga xam ne danoo nekk si kër Cheikh Rafal yaakaar naa mbaar yi nga xam ne moom la sëriñ bi seen mbaar yi sëriñ bi seen mbaar yi yëpp mboolem koo xam ne kii Cheikh Rafal dafa gërëm sa maam sa mbaar a ngi fii sa njaboot xëy di ànd ak sëriñ bi sëriñ Jili mi ne seen kanam ñu ànd si liggéey bii. taalibe yi nga xam ne nag lépp ñoo ma te doo jóg si di ko wax sëriñ mun taxaar du jóg si di ko wax noonu la ko sëriñ am di waxee wax ne mi ngi sant taalibe yi képp koo xam ne sa yaakaar génnut Cheikh Raye mu ngi lay sant cant gu amul tàmbaliwaay amatum yem ndax ndigal lu mu mas a jot. ndigal loolee ba mu ko yëkkatee ñëpp a bàyyi lépp lu nu jàppoon kenn ku ne def si yitte ju mat sëkk ba sëriñ bi am si ndam loo xam ne moo ko gënal. loole moo taxoon sëriñ bi wax ma ne ma cant gii mënu moo ña koo ñàkk seere di ko seereel Cheikh Modou Basir waaye di ko seereel Cheikh Modou Mountakha xam ni ñëpp ànd na noog moom di teewlu ndigalu Cheikh Modou Mountakha ndax xam na ni baat bi leen tënk mooy baatum ndigal moo nu fi indi te bàyyi nu fi soxla ndigal mooy sëñ bi di digle rek noonu nga ko waxee. mbañ mi moom fasu ko yéenee lekk mukk moom njabootu boppam gii di njabootu maam Cheikh Fall loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ bi waxoon wax ko sëriñ Fallu mii sant ma ma ma waxaat ko si kanam mbooloo mi jottali ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ baa ngi nuyoo sëñ Fallilu Fall sëñ Modou Aminta na asalaamaaleykum wa wa barakaatuhu. jotul suñu kàddu fu mu ko daa nee mi ngi jottali ay kàddu fa mu daan jottalee rek. mooy di jégalu jataay bi ñu toog. mooy di jégalu jataay bii ñu toog. sëriñ Tuubaa toog fii. ke sëriñ Tuubaa toog fii. ñu yëkkati suñuy moom. ñu yëkkati suñuy kàddu fi moom. loolu day mel ni. loolu day mel ni. bu dul ndigal day. bu dul ndigal. ak mooy lay doon. ak mooy lay doon. waaye buy ndigal nag. waaye buy ndigal nag. ak topp lay doon. ak topp lay doon. ndax taalibe moom bu toogee fi kanam kilifaam. ndax ab taalibe bu toogee fi kanam kilifaam. dafa war a mel ni ab néew. daa war a mel ni ab néew. ci loxoy way sang ya. ci loxoy way sang ya. wala wala loxoy way ndund ya. wala loxoy way ndund ya. nga xam ni du am menn bañ. nga génn bëgg. wala génn bëgg. ci luñ koy defal. ci luñ koy defal. baa fuñ koy jëmee. baa fuñ koy jëmee. kon nag bu yëkkatee kàddu yi rek. kon ne bu yëkkatee kàddu fii. ndigal ndigal lee. baatum ndigal lee. waaye du lu war waaye du lu war. waaye du lu war de. waaye ndigal moom. waaye ndigal moom. war war na ci kaw lépp. war na ci kaw lépp moom. kon nag ñoo ngi nuyu sëñ Mouhamadou Bassirou Mbacké. kon ne ñu ngi nuyu Cheikh Mouhamadou Bassirou Mbacké. ibnu sëriñ Abdou Khadir Mbacké. ibnu sëriñ Abdou Khadir Mbacké. tam nekk fii. tam nekk fii. nekkal fi Serigne Touba. nekkal fi Serigne Touba. yor kàddu Serigne Touba. yor kàddu Serigne Touba. ci yoonu murid yëpp. ci yoonu murid yëpp. ci ndigalul ay magam. ci ndigalul ay magam. ay waajuram ay waajuram nga xam ne moom ku séen rek nga xam ne ku ko séen sa xel dina dal ci ni. sa xel dina dal ci ni. ndawal Serigne Touba nga ne lu wér. ndawul Serigne Touba ngi ne lu wér. te li muy indi. te li muy indi. fa Serigne Touba lay bàyyi koo. nee fa Serigne Touba lay bàyyi koo. te njëriñ lay doon loo xam ne te njëriñ lay doon loo xam ni. murid rek murid rek ñoo koy tax a jóg. murid rek koy tax a jóg. kon Cheikh Mamadou Bassirou. kon Cheikh Mamadou Bassirou. ci kàddu Cheikh Mamadou Moustapha mu Serigne Modou Mbenda. ci kàddu Serigne Modou Moustapha moom Serigne Modou Mbenda. jëwriñu maam Cheikh Ibra Fall ji. di jëwriñu maam Cheikh Ibra Fall ji. moom tam mi ngi delloo kàddu yu nuyoo. moom tam mi ngi delloo ay kàddu yu nuyoo. kàddu yu cant. kàddu yu cant. kàddu yu ngërëm. kàddu yu ngërëm ngërëm jëme ko ci sangam bu baax boobu jëme ko ci sangam bu baax boobu muy Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko gën a ñaanal nag di ko gën a ñaanal nag mu gën fee yàgg lool mu gën fee yàgg lool te gën a wér te gën a wér ba sémba yim sémbal maamam yëpp ba sémba yim sémbal maamam yëpp mu mu àggaleel ko boppam ba am ci ngërëmal sëriñ Touba ba am ci ngërëmul sëriñ Touba ànd koog njabootu sëriñ Touba gépp ànd koog njabootu sëriñ Touba gépp ànd koog ñun murit yëpp ànd koog ñun murit yëpp xolam sedd na ci moom bu baax nee xolam sedd na ci moom bu baax a baax ci njariñ li mu koy yót ci njariñ li mu koy yót ndax ndigal moom ndax ndigal moom njariñ njariñ rek la njariñ rek la waaye lor lor lor nekkul ci waaye lor nekkul ci biir ndigal ndax loolu nga wax léegi ni ndax loolu yi nga wax léegi ni sëñ Abdoulahat Mbàkke mu baax ma sëñ Abdoulahat Mbàkke mu baax ma waxoon na ko sëñ Modou Aminta waxoon na ko sëñ Modou Aminta ne ko suñu yaari kër yi dañoo am bañ ne ko suñu yaari kër yi dañoo am bañ kër sëñ Touba gi ma toog kër sëñ Touba gii ma toog ku toog fi ma toog ku toog fi ma toog war a digle war a tere war a digle war a tere digle woo tere woo. digle woo tere woo. koo fi def ku ko fi def. lekk nga mbañum kër sëñ Touba. lekk nga mbañum kër sëñ Touba. seen kër googu yéen Baye Fall yi nag. seen kër googu yéen Baye Fall yi. li seen mbañ. lay seen mbañ. mooy ndigal jóge kër sëñ Touba. mooy ndigal jóge kër sëñ Touba. ñëw kër Cheikh Ibrahima Fall. te jëfewu leen ko. ne fu ñu ko fa defee. lekk ngeen mbañum kër Cheikh lekk ngeen mbañum kër Cheikh Ibrahima Fall. kon ndokk bi ñu dimbalee ba nga. kon ndokk bi ñu dimbalee ba nga xam ni. mbañ moom lekkuñu ko. mbañ mi moom ñun lekkuñu ko. ca fas ñu ko yéene lekk mukk. ndigal rek mooy sunu dund. sunum koom. mooy sunum koom. mooy sunu alal. mooy sunu alal. mooy sunu lépp. mooy sunu lépp. moom la ñuy moom la ñuy daraje ko amee rek. ko amee. suñ xol day sedd guyu. waaye buñ ko ci tiitaange la ñuy nekk. waxtu wu nekk ci tiitaange la ñuy nekk. dafa ne danoo tooñ. dafa ne danoo lu warul. waaye bu nekkee ci ndigal nag. waaye bu nekkee ci ndigal. suñ xel day dal lool. suñ xel day dal lool. kon sëñ bi nee na. ngi sant sëñ Muntaxa Mbàkke bu a baax. bu baax a baax. di sëriñ tubaa gi li leen sëriñ tubaa di liggéeyloo li leen sëriñ tubaa di liggéeyloo mu man loo leen ko nag mu man loo leen ko nag ban jëf ko na mu ko bëggee ban jëf ko na mu ko bëggee te am ci ay ndam yu bare te am ci ay ndam yu bare bare sëñ bi nag sëñ bi nag fi nga fii nga ñëw muy daare Serigne Touba ji muy daare Serigne Touba ji xam ni nga ko waxee rek xam ni ni nga ko waxee ci ndigalu Serigne Cheikh jëmbal la ko njëkk a ubbee ci ndigalu Serigne Cheikh jëmbal leen ko njëkk a waaye ñu nag léegi sëñ am sëñ Modou Mbenda waaye léegi nag mu ne ci loxol sëñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbenda mu yokk lool mu yokk liggéey bi lool nag moom taaral ko lool ko lool it def ci ay ndimbal yu bare ay ndimbalit yu bare bari waaye loolu day waaye loolu day sant na ñu koy def loo nee na sant na ñi koy def loo waaye ñi koy def waaye ñi koy defalit sant nañ ko sant nañ sëñ Amdi Fall ñu fi teew ñi fi teew ñëpp ñoo gën a néew ñi war a ñëw ci liggéey bi. nee ñoo gën a néew ñi war a ñëw ci liggéey bi. ndax moom booy seet ay milliards fi nekkoon. ndax booy xool da nga naan ay milliards fi nekkoon. booy xool tey day mel ni junni junni rek fi nekk. booy xool day mel ni tey junni rek fi nekk. te xam naa mbett mi rek. te xam naa mbett mi rek la. yaakaar naa suñ ko yëgoon démb rek. yaakaar naa buñ ko yëgoon démb rek day. di nga fi fekk mbooloo moo xam ne. di nga fi fekk mbooloo moo xam ne. toogloo leen toogloo leen du yomb. nee na toogloo leen du yomb. waaye dégloo leen du yomb. waaye dégloo leen du yomb. waaye ñun lu ci kenn dégg rek. waaye ñun day ñun bàyyi faari lu kenn dégg ci ñun. day mel ni ñëpp dégg nañ ko. day mel ni kër Cheikh Ibra Fall gépp dégg nañ ko kon nag kër Cheikh Ibra Fall gépp kon nag kër Cheikh Ibra Fall gépp ni ko sëriñ daam waxee ni ko sëriñ daam waxee kër maam Saliou Fall kër maam Saliou Fall ba ci kër maam Saliou Fall mii ba ci kër maam Saliou Fall mii ak njaboot gi ak murid yëpp ak njaboot gi ak murid yëpp ak seex yi murid yëpp ak mboolem seex yi kër Cheikh Ibra Fall gépp dégg nañ ndigal li dégg nañ ndigal li fas nañ ko yéene jëfe itam waaye nag mi ngi lay seeral nag waaye nag mi ngi lay seeral Cheikh Bassirou ni la ndax ndax dañuy wax ne seere kat ndax dañuy wax ne seere kat la ca gën mooy la ca gën mooy bu dee doomu aadama bu dee doomu Adama. day doon ñaar mbaa ñett. nee du doon ñaar mbaa ñett. day doon day doon ñaar mbaa ñett. day day doon ñaar wala ñett. ci seere. ci seere. bu dee yàlla nag. nee bu dee yàlla nag. moom kenn doy na ci moom suñu borom. ndax moom xam na lépp. ndax moom xam na lépp. waaye ñu ngi lay seereel ni waaye ñu ngi lay seereel ni la murit yi nga xam ni murit yi nga xam ni moom ñoom daan di xëy ci liggéey ñoom ñoom ñoo daan ànd di xëy ci liggéey bi ak fu waay mën a bàyyikoo ak fu waay mën di bàyyikoo di góor di góor di jigéen di jigéen di mag di ndaw di mag di ndaw liggéey bi ni ñu ko jàppee liggéey bi day mbàkke ni ñu ko jàkke woon jaaxal na lool nee na jaaxal na leen lool ñoom ñu nekkoon ci kanam ndax Pastef bi ñu ko téye ndax Pastef bi ñu ko téye woon ak nungu giñ ci boole ak nungu giñ ci boole ak yaakaar giñ ci am ak yaakaar giñ ci am ak bëgg giñ ci am ak bëgg giñ ci am nga xam ne fu waay mën a amee sa mbokk nga xam ne fu waay mën a amee sa mbokk mbaa sa xarit mbaa sa xarit mbaa sa wëllëre mbaa sa wëllëre yaa ngi ko yéene yaa ngi ko yéene li nga bëgg mu dal la li nga bëgg mu dal la mu dal ko na mu dal sa xarit ba ba nga di ko woo ba nga di ko woo di ko indi ci liggéey bi di ko indi ci liggéey bi ngir bëgg mu jëf ci. baa mu fekkee ko. baa mu fekkee ko. loolu moom ku teew ku ne. loolu moom ku teew ku ameel nga ko sa mbokk. ameel nga ko sa mbokk. baa sa wëllëre. baa sa wëllëre. baa sa xarit. te njëriñal liggéey bi la nga xam rek. te njëriñal liggéey bi nga xam rek. moo tax ñu leen ci woo. moo tax ñu leen ciy woo. kon nag ñu ngi lay seereel ni. kon nag ñu ngi lay seereel ni. murit Cheikh Ibra Fall yii. murit Cheikh Ibra Fall wëllëreem yi. ak wëllëreem yi. ñëpp day. ñëpp day. bëgg nañ ndigal li lool. bëgg nañ baatum ndigal bi lool. jàpp nañ ko lool. ko lool.